بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi leen di nuyu ci nuyoo islaam bu tedd bi yéen ñi bokkal jataay bi ci teewaay ak ñi koy topp ci ay jumtukaay di ndokkeel ak a nuyu waa daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee saa su nekk rawatina ci weeru koor gi di ko dundal ci ay jotaay yuy dundal ruux di yokku ak xam di ñaanal suñu kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko ci suñu kanam te gën koo kàttanal ba mu yóbbu yan bi fu kawe njot te ñu ànd koog moom di sant yàlla bu baax a baax di ko dollee ñaan mu dolli ñu jàmm ci suñu réew mi ak ci mboolem réew jullit yi di ndokkeel jullit ñépp ci weeru koor gi rawatina ci fukki fan yi ci mujj nekk yu ci am solo lool nga xam ne ci lañu gën a yaakaara dajeeg laylatul qadr ni ko sëriñ Moustapha waxee tomb bi ñu bëgg a waxtaane tey mooy yar ruux ni ko sëriñ bi Cheikhul Xadim radiallahu anhu daa defe muy tomb boo xam ne waxtaane nañ ko fi ay yoon ci jataay yii ci ay tur yu wuute waxtaane nañ ci al iraada waxtaane nañ ci ak tasawuf lu ci ne ab tomb la buñ mës a waxtaane fii ci jataay bii tey ñu tànn ak tarbiyatu ruuxiya yooyu yépp nag ay tur la yu bokk lu ñuy tegtale bu ne ak tarbiya tarbiya ruuxiya moom moom la boroom xam-xam yu bari ci jamono jii nga xam ne dañuy moytoo tudd baatu tasawuf te xam ne mënta ñàkk ci diine ji ñu bëgg a wut yeneen tur yu ñu koy tuddee di wax atarbiyatu ruuxiya mbaa tazkiyatu nafs mbaa yu demee noonu waaye mooy dañ xamoon rek di ko di ko tuddee tasawuf mbaa ñu koy tuddee al tariqa mbaa ñu koy tuddee al iraada yooyu yépp ay tur la yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy tegtale waxtaan wi nag dana am ab muqaddima ab ubbi ci lislaam ci boppam ak i xaajam ab muqaddima ci islaam ak i xaajam ak tasawuf ci boppam ci tënk ak nag jëmmi tomb bi ñuy waxtaane mooy tarbiya ci boppam lu muy tekki tarbiya ruuxiya mooy lan ak bu dee sëriñ bi moom nu mu ko dégge ak san solo la ko jox ci booteem loolu lépp mën nañoo yàq ne ab muqaddima lay doon donte ñuul na lu gudd waaye lu mënta ñàkkale ci waxtaan ngir mu gën a leer dëgg-dëgg xolu waxtaan wi nag mooy jëmmi yar ruux googu ban wàccuwaay maanaam lu mu doon ci biir yoonu tasawuf ban xaaj la ci ak lan mooy ay cosaanam ak lan mooy jumtukaay yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo ngir sottal ko loolu lépp ci ni ko sëriñ bi gisee moom tomb ba ca mujj nag mooy sëriñ bi ginnaaw tarbiyatu ruuxiya da ko fee fekkoon bi mu dikkee mu am ciw gisiin am ciw doxiin lan moo ràññale aw gisiinam ak doxiinam ak yeneen gisiin yi ak yeneen doxiin yi kon yooyu daal mooy tomb yi nga xam ne ci lañu fas yéene tënk waxtaan wi xam naa bu ci nekk dañ koy fexe tënk rek ndax mën a sàmmonteeg waxtu wi ngir dugg ci biir waxtaan wi lislaam yi nga xam ne lépp lu baax lu ñuy waxtaane ci la dugg mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la mooy jenn diine ji nga xam ne mooy diine ji mu nangu te ku mu mës a yónni diine jooju la la yónni woon mooy diine yi wéetal yàlla ak jaamu ko te bañ koo bokkaale ak dara bañ koo nirooleeg dara te jaamoo ko ni mu la ko sante te def ko ngir jëmmam te sellal ko tënk sa dund ci yoon wi mu la ko rëddale loolu mooy diine jooju nga xam ne naka jekk ku yàlla ma sa yónni diine jooju lay yónni suñ boroom mi ngi wax ne shara'a lakum min ad-diini maa wassay bihi nuuhan walladi awxaynaa ilayk ba àgg ca aaya ba mooy diine ji la yàlla yónni woon nuux moom la yónni woon Seydina Muhammad yónni ko Seydina Ibrahim yónni ko Seydina Muusa ak Seydina Isa ñoom ñëpp mu ne leen an aqimu diina wala tatafarraqu fii te ñëpp na ngeen taxawal diine ji di lislaam te bu leen ci wute diine jooju di lislaam ñetti xaaj la mooy li ñuy fas ci xol fas-fas buy na ci xol ak jëf yu ñuy jëf ci ay cër ñi di ko gis ak di ko wax ak melokaan wu ñuy mel mooy li sëriñ bi wax ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ihsaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu jibril bu siiw ba ba mu ko laajee luy lislaam mu wax ko ko mu ne ko luy liimaan mu wax ko ko mu ne ko luy lixsaan mu wax ko ko mu laaj ko kañ la saa di taxaw mu ne ko tanewuma la ci mu ne ko lan mooy ay mandarga mu wax ko ca ay mandarga ba mu jógee dem def ne kooku mooy jibril daa dikkoon di leen xamal seen mbirum diine ñu gis na kon ñett yooyu mooy xaaji diine yi buñ ko sukkandikoo ci xadis boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu ñu jàngalee imaan la ñuy jëkk a wax teg ci islaam door a ñëw ci lixsaan waaye buñ dee jëf lislaam dañuy jëkke nit ki day jëkk a dugg ci lislaam door a góorgóorlu ci ngëm ngir matal ko door a yegg ci lixsaan liimaan nag ay ponkam juróom benn la ni ko xamee mooy gëm jëmmi yàlla ji ak la ca aju gëm malaaka yi gëm téere yi yàlla wàcc ci yonent yi gëm yonent yi ci seen bopp gëm bis bu mujj ba gëm ne lépp lu am yàlla moo ko dogal muy lu neex muy lu naqari muy lu baax muy lu bon loolu mooy ponk gëm ponk lislaam juróom la bu ñu waxee ponk mooy li ëpp solo ci mbir mi nga xam ne bu doon ab tabax mooy keno ya ko téye bu dee lislaam te mooy jëf jëf yu baax yi jëf yi jëf ci ay cër te wax ci la bokk ponk lislaam mooy nga seede ci sa nga gëm ci sa xol seede ci sa làmmiñ ne amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo ko bu ñu war a jaamu tam yeyoo ko ku dul yàlla sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ngay julli julli juróom woor weeru koor joxe asaka bu la waree aj màkka soo ko mënee loolu mooy ponk lislaam lenn lu ci nekk biñ ko laajee yonent yi ponk yee tudd na ko bi ñëwee ci ponk bu mujj bi nag muy rafetal bi ko ko laajee daf ne mooy ngay jaamu yàlla mooy boo dee jaamu yàlla nga mel ni yaa ngi gis yàlla mi ngay jàmm yaa ngi jàkkaarloog jëmmam te nga xam ne soo mënta gis jëmmam it boo nekkul di gis jëmmam it moom mi ngi lay gis an taabudallaha ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa innahu yaraak waaye tuddalu ko ay ponk lexsaan moomu di rafetal tuddalu ko ay ponk waaye boroom xam-xam yi lii yonent bi sas leeral xaaj yi mu leeral muy liimaan am na boroom xam-xam yoo xam ne gëstu nañ ci xam-xam boobu ba leeral ko ñu tuddee xam-xam boobu tawxiid xeeti jëf yi jëf ci ay cër yépp ci ay jaamu yàlla ak ci jëflante ay borom mi xam-xam gëstu nañ ci ba leeral yoon woowee seen xam-xam boobee la ñu tuddee fiq xaajum ñetteel bi am na borom mi xam-xam ci gëstu maanaam melo woowu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax gëstu nañu wan yoon la nit war a jaar ba mu yeggale ko ci melo woowu am na borom xam ci gëstu ba xàll ci aw yoon xam-xam boobee ñu xàll ak doxin wañ ca gis moo tudd tasawuf ñoom nag ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxu ay ponkam ñoom ñooy jéem a gëstu yoon wi ak xam-xam bi ya ci ëpp solo ñu di ko tuddee ay ponk kenn ku nekk ci ñoom la la sab di gëstu jox ca nga sukkandiku ba wax ne ponk ya lii la moo tax ponki tasawuf dañ ciy wuute boo demee Cheikh Abdul Qadir Jilaani juróom-ñetti ponk la wax bu ñu demee ci Munawwir Munawwir Sudur suñ baa ngi ko fay leeral boo demee ci Masaalikul Jinaan juróom-ñaar la ko wax waaye nee na ya daal yi dolli na ci benn mu juróom-ñett waaye nag am na ponk yoo xam ne ñoom ñépp a ci daje kenn ñàkk koo limaale muy ñeenti ponk mooy nga xam ne kon mën nañu jàpp ne moom ponk la yuñ dëppoo amutu wuute mooy arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an shuyuxin bil ishaaraati mooy xiif bu metti ak noppi gu sax ci lépp lu amul njariñ ak di ñàkk a nelaw rawatina guddi ak beru te mooy wéet yooyu mooy ponk yi nga xam ñoom ñépp dëppoo nañ ci ci ne mooy ponk yi mooy ponk yi tasawuf kon loolu ab loolu ab ubbi la léegi nag tasawuf moomu nag buñ ko dee xool te sukkandikoo ko ci njàngalem sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu dañu naan dafa am aw yoon maanaam xam nga tasawuf moom dañuy jàpp ne kuy dox aw aw yoon la wu ñuy dox ngir dem ca yàlla ngir àgg ca yàlla kuy dem jëm ci bara jëm fenn nag da nga am aw xàll woo jaar da nga am nooy doxe ca xàll wa da nga am lu la yóbbu mbaa ku la yóbbu loolu nag lañu sëriñ bi jàngal di wax ne man talaba al wusula lil jalili falyaqsim bi sunnati rasuli bi an yulazima mutian la yamil fi zahirin wa batinin an ilsabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada ku bëgg a àgg ci yàlla am na yoon woo war a jaar aw xàll wu kenn mënta jaar feneen ba àgg ci yàlla wudul moom mooy sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falyatasim bi sunnati rasuli mooy lislaam diine ji yonent bi jàngale diine ji nga xam moom la yàlla yónni yonent bi wàcc alquran ngir mu tënk ko yonent bi leeral ko ci ay waxam ak jëfam maanaam ci sunnaam yoon wu leer nañ woowee te wér la ñuy tuddee sunna moom la ñuy tuddee it sharia xàll wi kon xàll wi mooy yoon mooy sunna si yonent bi te mooy tënku ci diine mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan yooyu mooy yoon wi nga xam ne ku jëm ci yàlla mënoo koo mënoo jaar feneen fu dul ci ci yooyu ñu wax noonu moo tax mu ne fa yaatasil bi sunnati rasuli kon loolu mooy xàll wi ki lay yóbbu mooy ki xam yoon wi mas caa jaar ba yegg ci dëkk ba mooy ku jaar ci yoonu yàlla ba àgg ci yàlla kooku mooy ki la mën a yóbbu fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal mooy bi an yulaazima mutian la yamil an zahirin wa batinin an isabil kon mooy ki lay yóbbu kooku mooy koo xam ne xam na diine ji lépp nañ ko war a xamee jëfe ko nañ ko war a jëfee boole li ñu tuddee sharia te mooy diine wàllu gi féete kaw ci diine ak xaqiqa mooy wàllu ga féete biir ci diine li xol li cër yi féetewu mooy sharia li xol bi féetewu mooy xaqiqa koo xam ne ñaar yépp xam na la ca aju lépp jëfe ko ba mat wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladi xoqa lahu an yuttaba koo xam ne boole na sharia ak xaqiqa ci xam akuk jëfe moo tax mooy bi an yulaasima mutin laa yamil an zahirin mooy sharia wa batinin mooy xaqiqa nga xam ne du jàng du jàdd ci du jàdd dara ci sharia du jàdd dara ci xaqiqa nga am ku mel noonu mooy ki la mën a yóbbu ba nga àgg nit ñi doxee nag ci yoon wi doxin wi mooy kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran li ilahi tuhsina da ngay dox da ngay góorgóorlu saa su nekk ci luy matal sa ngëm di góorgóorlu saa su nekk ci luy matal sa topp yàlla sa wommatu ci yoonu yàlla sa jëmm nga tënk ko ci yoonu yàlla di góorgóorlu saa su nekk ci nu sa ngëm di mate nu muy rafete ak nu sa topp yàlla di mën a mate kon rafetal daa day delluwaat du xaaj bu beru waaye moom bu beroo itam day beru ci xel nii rek ci wax nii rek ngir mën a jàngale waaye rafetal moom pas-pas nga koy def mbaa ay jëf waaye lu ñuy lu ñuy def la ñuy rafetal waaye kenn du jekki de rafetal te defoo dara kon rafetal mi ngi aju ci ci ci ci liimaan ak ci lislaam bu ko defee nag doxin woowu daa am ay cosaan daa am ñetti mbir yu ko tënk mooy da ngay xam li nga war a xam di jëf li nga war a jëf mel ni nga war a mel xam li nga war a xel moom mooy al ilmu naafia di jëf li nga war a jëf mooy al amalu saalih mel ni nga war a mel mooy al adab al mardi moo tax mu ne bi an yu laa moo tax mu ne yaquuduhu bil ilmi wal ibaada kama yurabbihi bi tarkil aada kon foofu ak tarbiyatu ruux ya mooy yar ruux ab xaaj la ci ñetti ponk yi nga xam ne kuy dox jëm ci yàlla mënoo koo ñàkk mooy ñu yar la ñu yar la ndax dañ lay xamal yar la yéege la moo tax yoon wi ñetti siifo la mooy tarbiya mooy mooy taalim ak tarbiya ak tarqiya dañ lay xamal yar la yéege la kon yar la mooy xaaj mooy siifa bi ci digg bi ak tarbiyatu ruuxee kon mooy al marxalatu alwusta min maraxili sayri alsalaasi ila llahi taala kon nit ki dañ koy xamal jëkk yar ko ñaar yéege ko ñett mu door a yegg ci yàlla kon bu ñu waxee atabet waxee kon mooy yar nit waajal ko ngir mu mën a yéeg yàlla dafa kawe dafa sell dafa màgg dafa rafet kenn du dem ci moom te waajoo ba jekk maanaam ñu sang la ba nga set solal la ba nga jekk ñu tàggat la ba nga xam nooy nekk boo nooy nooy deme ci moom ak noo fay nekk boo eggee loolu mooy at-tarbiyatu ruuxiya kon buñ ko bëggee xam ne rek tarbiya ci boppam rek te mooy yar rek yar rek mooy defar defar nit defar nit ki sàmm ko ba mu ñoŋ sàmm jëmmam sàmm bakkanam sàmm xelam sàmm ruuxam ba mu ñoŋ waaye li yàlla def ci moom ci ay man-man man-mani yaram ak yooyu xel ak yooyu ruux yokk ko yokk ko yokk ko ba mu àgg fa gën a kawe cig mat waaye di ko jubbanti ci biir ak màggam saa yu demee ba war a dëng ci fenn ñu jubbanti ko foofa ba nga xam ne yow mi war a jaar ci màgg ca lay jaar ba àgg fa mu war a àgg loolu mooy yar ci buñ ko tënkee nga xam ne kon yar lépp a ngi ci dañuy yar jëmm di yar ruux te mooy ñaar yi nga xam ne mooy nit am na ñoo xam ne jëmm rek lañuy yar ak luy dimbale jëmm ngir mu mën see nekk mooy nit yi saayir yi dañuy yar yaram bi ak xel mi kon dañuy tàggat yaram dañuy yar yaram jàngal ko li mu war a man ci lu koy tax a mën a dund jàngal koy am xelam ñu yar am xelam maanaam def jàngal ko xam-xam bu koy tax a mën a dund loolu lépp nag ci àdduna kon lépp ci ci yaram lay del siwaat waaye lu jëm ci wàllu ruux ñoom jàpp ne seen yoon nekku ca am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ruux mooy la ëpp solo ndax mooy cosaan la jóge ca yàlla dikkoon sol mbubbum yaram dana dem ba summiwaat ko delluwaat ci boroomam ginnaaw bu mu solaat ko dëkk ajjana baa mu dëkk feneen kon ñu ne ruu googu mooy li ëpp solo mi ngi mel ne wurus ak mbuus ma ñu ko def yaram bi mooy mbuus mi ruu gi mooy wurus mi ñuy denc kon yaram wi ruugi moo ëpp solo moo tax ñoom bu ñu yar dañuy jàpp ne ruugee ëpp solo moom rek la ñuy yar ci anam gi ko tasawuf jànglee loolu am na ñoo xam noonu lañ gisee bu dee Sëriñ Tuubaa nag radiyallahu anhu daa jàpp ne mënee su leen a teqale kenn mënta teqale ruux ak yaram ruux ci biir yaram lay nekk yaram ruux moo koy dundal kon ñaari yar yi mënee su ko teqale faaw nga boole lépp yarandoo ko mu gis ne nit ruux la ak yaram yaram ci suuf sii la jógee moom la yàlla tabax muy jëmm mu ëf teg ruux ruux nag ci yàlla la jógee dig leer baa muy secret daal mbóot moo xam yàlla xam lu mu doon bi mu fabee ruux def ci yaram am na soppiku bu am ci yaram mooy tax na yaram dund tax na yaram am ay yëg-yëg muy bànneex ak di bëgg lu koy taxa luy dundal boppam luy dundal yaram wi ci la nit ci la jëmm ji amee li ñu tuddee bakkan muy annaf nga xam ne bakkan mooy taxawu yaram di ko laajal ay soxlaam ay yitteem moo koy laajal di ko ngir mu lekk di ak naan bànneexub sëy bànneexub nelaw bànneexub wax jaxasoo ak lépp loo xam ne rek bànneexub daraja bànneexub bëgg alal bëgg ay doom ay soxna ak yépp loo xam ne ay luy dellu la rek ci ci àdduna ji ci dunduk àdduna gi bakkan moo koy laajal moo koy laajal yaram kon mooy ki koy taxaw mooy muhaamim waaye ruux bàyyi ko ci yàlla di lu sell bi ñëwee ci yaram jural na ko bu duggee ci biir yaram jural na ko ak fàtte lam xamoon démb muy xamoon boroomam jural na ko mu fàtte ko jural na ko ab taq jural na ko ab diisaay loolu jural na ko ko mu war a bëgg a bëgg a mel na bëgg a delluwaat ca na meloon waaye xel moo koy taxawu di ko laajal lim soxla moom itam kon foofu noonu la gisee ne noonu la nit mel bu ko fee nag nit ki war a góorgóorlu ñu war a yar aw yaramam tàggat ko war a yar ak ruuxam bakkanam not ko ba nga xam ne yaram ak bakkan duñu faagaagal ruux war a yar xel ba muy wan ruux ba muy wan nit yoon wi war a jaar ba ak ruuxam dundut yar xel war a yar itam ruux ba mën a góorgóorlu ci mat ak kàttan ba am kàttan ba mën a delluwaat ci boroomam loolu lépp lay tënk ne wa aqlaka jaal qaida al hawa wala taakis فتحوي غضب المولى على فالمؤمن الذي إلى مولاه يقود ذا الإنقاذ لا هواه طوبى لمن يقوده حجاه دون هواه لرضا مولاه kon philosophe bi ma tënk léegi ba ñetti bay yi tënk na ko mu ne na nga fexe ba sam xel na jiite sa bakkan sam xel na jiite sa bakkan di ko wommat di ko jëme ci sa boroom te bul sàggan ba sa bakkan jiite sam xel di la wommat di la jëme ci alku loolu mooy li suñu boroom di wax ci alquran wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha ak di wax ne fa amma man taxa wa aatara alxayata addunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawe fa inna aljannata hiya almawe kon loolu moo tënk gisiinu sëriñ bi ci wàllu yar mooy kon yar ruux ceqaliwu ko ak yar yeneen xaaji yar yi ci des maanaam boo yar ruux da nga yaraale yaram yaraale bakkan yaraale xel yara sa ruux sa yarug ruux dooga mat kon moom loolu mooy gisiinam ci wàllu yar bu ko defee nag kon wax nañu ne yar moomu mooy benn xaaj la ci ñetti xaaj yi nit ki aajowoo bu bëggee àgg ci yàlla loolu nag te mooy xam ak jëf ak mel ak ak mel ni ñu war a mel xam li ñu war a xam ji jëf li ñu war a jëf te mel ni ñu war a mel alay mu naafi wal amalu saalih wal adab al mardi mooy ñetti xaaj yi kon al adabul mardi te mooy mel ni ñu war a mel balaa mën a nekk day am fu ñuy jaarale nit ki mooy dañuy koy dañ koy yar dañ koy yar yar boobu nag ci ni ko xam nit yàlla yépp dëppoon nañ ci rëddoon yoon wi sëriñ bi dikk ànd ak ñoom ca woowa yoon yar boobu ñetti cosaan la am mooy jihaadu nafsi mooy yar bakkan not bakkan ak laabal ab xol te mooy génne ci lépp lu lu lu di safaan laabal bakkan ak ci cër ci lépp lu di safaan ak taaral ko maanaam waajal ko def ci moom xeeti ngëneel yi yépp ngëneel yi melokaan yu rafet yépp ci ay jikko ak i teggin ak i melokaan yu rafet yépp nga def ko ci moom kon mooy jihaadu nafsi ak taxliyatu ak taxliya loolu mooy ñetti cosaan ñetti xaaj yi nga xam ne moo tënk yarub ruux moo tax ci téere bi nga xam ne ci lañu sukkandiku ci wàllu googu tam tënk yoon wi muy masaalikul jinaan da caa tënk doxiin wi ñuy dox jëm ci yàlla te mooy xam-xam ak jëf ju baax ak yar boo demee ca muqaddima bi ilmu la ca wax ak amal waaye nag la tax téere jóg dëgg-dëgg mooy tarbiya moomee wutal ay bunt ñetti bunt bunt bu jëkk bi jëm ci jihaadu nafs bu ñaare bi jëm ci taxliya bu ñetteel ba jëm ci taxliya loolu mooy xaaji yar mooy not bakkanum nit ki setal ab xolam ci mboolem jàngoro yu xol yi setal bakkanam ci mboolem ayib yi waaye def ci moom mboolem meloy xol yu rafet yi ak meloy jëmm yu rafet yi kon loolu mooy xaaji yar loolu nag ngir def ko sëriñ bi moom fekkoon na boroom xam-xam yi tënk ci aw yoon woo xam ne ànd na ca ak ñoom waaye nag da caa jëfandikoo gisiinu boppam ak maniinu boppam xam nga dañu ne yar maanaam yar yar ruux farata la maanaam lu mënta ñàkk la ndax maanaam bu ñu bakkanu jamaat bu ñu ko defarut nit ki du mën a texe xad aflaha man zakkaha bu ñu ko defarut borom maanaam borom du mën a du mën a du mën a du mën a texe yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man atallaha bi qalbin salim kon defar ab xol ak yar bakkan daa nekk lu mënta ñàkk farata la moo taxoon sëriñ bi wax ne xasaal yi nee na tasawuf xam ko xam ca loo defaroo loo yaree sa bakkan defaree ca sa xol ak say jikko xam ko ca jëfe man ko ca def ko ca lu mënta ñàkk la amma tasawufu fa fardu ayni la dal xasaali yi bi dooni may ni faaw nga xam yoon yi nga war a jaar ba not sa bakkan fexe it ba jaar ca ba not sa bakkan faaw nga xam yoon yi nga war a jaar ba defar sa xol boo jaar ca it ba xol ba defaru loolu mënta ñàkk bu ko nit ki defut du mën a taxe bu ëllëgee kon loolu day lu mënta ñàkk moo tax ñu jàpp ne farata la moo tax sëriñ bi di wax ne wal istigaalu bi dawaiha abad min baadi maarifatiha fardan yuat wa huwa min aazami ma abdun bihi raama iqtiraaba rabbihi fanta bihi fexe ba xam yoon wi ngay jaar ba defar sa ruux ak sa xol ak sa bakkan fexe ba def ko it loolu moom xam gi farata la boo ko xamee ba noppi nag nga jëfe ko lu mënta ñàkk la te jaamu yàlla gu rëy la loola boroom xam-xam ni tënk nañ ci aw yoon woo xam ne sëriñ bi leeral na ko ci masaal ko jinaan te moo tënk yoonu tarbiyaam dafa wax ne suma dawaau jumlatan huwa rujoo ila ilahina taala bil xusoo maanaam defar nit defaru xol yar ak ruux yar ak ruux boo ko bëggee yoon wa ca yoon wu gàtt wa rek maanaam tënk yoon wa mooy nga dellu ci yàlla ragal ko ragal gu mat sëkk ndax yàlla moo bind bakkan bi boole ko yow jox kàttanal ko mu fit ba ba tax mu fitnaal la kon boo delloo ci yàlla ma ko sàkkoon dooleel ko jébbal ko sa bopp sàkk mu xettali la yàlla dana dox sa diggante ak moom mi ngi mel ne mu am xaj rek ab xaj bu soxor bu daw wut si la song la la gën a gaaw ci lu lay musal mooy nga dellu ca borom xaj ba laxasu ca moom mu teqale la ak moom kon dellu ci yàlla dellu gu mat sëkk ragal ko ba mu ragal ko mat sëkk rek loolu moom ku ko def rek da nga daldi sa ruux dana sell sa xol dana laab sa bakkan danga ko not moo tax mu ne suma dawaa ujumal huwa alxusoo ila ilahina huwa rujoo ila ilahina taala bil xusoo kama rujuuka li rabbil kalbi yakunu awla min anaa id darbi waaye nag mu gën koo leeral tudd ci ay tomb yoo xam ne moo lay gën a xamal nooy defee lii mu la wax mooy bi ci njëkk mooy dangay am sasu sasu jaamu yàlla da ngay sas sa bopp da ngay yan sa bopp yan bu diis ci ay jaamu yàlla mooy nga taqoo li ñu tudde wird al wirdul yawmi mooy sas sasu jaamu yàlla wooy bay bis bu ne nga xam ne du bokk ak safara tey jëmm yi nga war a def loolu la ñuy tuddee naafila nawaafil nawaafilul xayr yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sama jaam du ma defal lu ma gënal li ma farataal ci moom kon farata yow jiitu dara mënu ko wecc waaye bu ñu ko defee ay farata ba noppi nag bëgg sama ngërëm tax mu sas boppam ay jaamu yàlla yi sàkk sama ngërëm dana dema dema dem ba ma bëgg ko su ma ko bëggee maay doon déggam gi muy déggee gisam bi muy gisee loxoom yi muy jàppee tànkam yi muy doxee lu mu bëgg ma defal ko lu mu bañ lu mu ragal ma musal ko ca kon loolu mooy cosaanul wird te mooy sasu jaamu yàlla wooy sasoo bis bu set nga tegoo ko loolu ci yoon yi ñu jaar jumtuwaay yi jëfandikoo ci yar bakkan ci la bokk mooy bi xamli asqaalil ibaadaati ñaar mooy nga ànd ak sëriñ bu matut sëriñ mooy soxbatu ahlil xayri mooy mulaazamatul mursid ar rabbaani mooy jëmm di sëñ Mouhamadou Mamoun Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadil doon waxtaane fii nga ànd ak ku mel noonu nga taxaw moom mu tarbiya la mu nekk sa fajkat bi lay faj bi lay defar bi lay yar kooka sëriñ bi tënkoon na ko aw meloom moom laa waxoon ci njalbeenu waxtaan wi moom lay sëñ Modou Mamoun doon waxtaane ci tombam bi mu doon waxtaane kon nga ànd ak ku mel noonu taxaw moom taxaw moom nekk ak moom di yendoo ko fanaan ak jaxasoo ab diir ab diir ba mel nam bëgg nga mel ko te muy melawoo dul tàggooti mu door laa yooyu kon taqoog sëriñ bu matub sëriñ boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy almujahada mooy jihaar ak sa bakkan wa minhu sidqu lmari fi lmujahada bil juuci liqtinaasi xayril faida fonki jihaar yi boroom xam-xam yi tasawuf yépp dëppoo mooy saxoo xiif xiif bu metti dëkke ko dëkke xiif bu metti dëkk ci xiif boo demee bay bëgg a dee mos tuuti ba leex ba ba ba ba xam ne jot nga sa bakkan mos tuuti ci ñam naan tuuti di ñàkk a nelaw dëkk ci ñàkk a nelaw boo demee ba mënta ñàkk bu la nelaw notee saa yu yëgee ne nelaw nga nga daal di ne bëreet jóg dëkkee noppi doo wax mukk lu dul loo war a wax la nga waroon di la nit ñi baaxoo wax fuñ toll di wax wax ju bare bari nga wattee ko tudd yàlla yow zikrullahi dëkkee wéet bañ a jaxasoo nit ñi ba ba ngay mel na nga war a mel ba sa bakkan ba ba ngay faju ba wér xam nga am na fu nit di toll ci wéra bi dañ koy téye ci fajukaay ba faj ko ba mu wér ñu doo koo bàyyi kon nit ki fi muy toll ci jàngoroy xol danañ koy téye ca fajukaay ba mooy dañ koy ber ci daara yi tarbiya ja mu ne fa ba ba muy wér bañ yeewi ko mu door a ba mu wér ba ba génne ko ci fajukaay mu doog a dem loolu mooy beru kon yooyu mooy ponki jihaad yi mu wax mooy xiif ak noppi ak dëkkee ñàkk a nelaw ak dëkkee wéet kon loolu tam ci jumtukaay yi ñu jëfandikoo ci yar ruux ci la bokk bokk na ci di lekk lu lew li ngay lépp looy jëfandikoo mu nekk lu lew li ngay lekk li ngay naan li ngay sol barab bi ngay nekk lépp looy jëfandikoo ci say yitte mu nekk loo xam ne amee nga ko ci amiin doon na lu yàlla digle ñu war koo am ñu war ko moom te nga amee ko ci amin wañ santaane loolu mooy lu lew mu lew mooy lu yà- loo xam ne yàlla digle na maye na ku ko war a mën a moom ku war lu war a mën a bokk ci moomeel ba noppi nga amee ko yow ci amin wu dagan amin ci yoon wa wañ ko war a amee loolu mooy alxalaal kon lekk lu lew dëkk ci lekk lu lew wa akluna min ak min asyabil xalaali la subhatin aw ribanaw iskaali ndax gaa yu baax yi dañu naan nit ki lu mu lekk lu na mel lay jëf booy lekk lu xaraam lu xaraam ngay jëf booy lekk lu ñu sib ci ay caaxaan ngay nekk lu ñu sib ngay jëf kon loo bëgga booy lekk lu lu dagan nag lu baax ngay def moo tax mooy yaa saaxi kul ma chita tafaal mislahu noo bëgg a mel it da ngay ànd ak ku na mel moo tax ñu waxoon ci ginnaaw ànd ak sëriñ bu ma tub sëriñ waa mooy wa xaalilan man chita taxdu shaklahu kon lekk lu leew boobu mooy bi ci toppaat bi ci mujjaat mooy nga nekk ci barab bu sell boo xam ne doo fa gis lu ñuy tere dee su fa dee su fa gis lu ñuy tere dee su ko fa wax dee su ko fa jëf mooy ci al biatu saaliha wa min dawaiha al firaaru min jamii mazinati zanbi li muhtadin mutia ya salaamatu min hinda ma ahliha an laa taxulla dahra fi waadiha kon yii mooy ponk yi nga xam ne moom la sëñ bi fekkoon gaa yu baax yi tënkoon ko ne ku yar ruux ci nga koy jaarale mu ñëw ànd ak ñoom ci woowu gisin dal di koy jëfe nag jëfe ga mu ko doon jëfe nag mooy mbir ma ca la feeñale gisiinam ca la feeñale maniinam ba aw aw ba amu am ba am ab aw yariin aw yariin woo xam ne mën nga ko tuddee ak tarbiyatu ruux yi inda Cheikh al Xadim loolu moo ñu yóbbu ci ponk bu mujj bi ci tomb bu mujj bi mooy li wuutale yaru sëriñ bi di ko ràññale ak yeneen yariñ yi ginnaaw ba mu àndee ñoom te lee nga xam ne ñépp a ko bokk li jëkk ci li ko wutale mooy moom aw gisiinam ci yar ruux ak nam ko jëfee daa matale mooy ashumul mooy daa gis ne jëm nit kenn du ko xaaj fab yaram bi bàyyi roo bi mbaa nga fab roo bi bàyyi yaram bi mbaa nga jël bakkan bàyyi xel mbaa nga jël xel bàyyi bakkan déedéet lépp ngay jël kon moom daa gis ne ku yar da nga yar lépp nit ki da nga yar yaramam da nga yar bakkanam da nga yar xelam da nga yar ruuxam ngir yar bakkanu nit ngir yar jëmm ji yaramu nit ki ngir yar ko ci la jëlee jumtukaayu liggéey di liggéeyloo nit ki nga xam ne nit ki fañ koy yare dañ koy liggéeyloo loolu gaa yi xamuñu ko woon bañ gisee muy liggéeyloo nit ñi sax am na ñu ko doon teg ay baat naan lekk ñàkku gor dëgganut wax yooyu jàpp ne moom liggéeyloo nit te doo ko fay moom ki la moom ki la yilif rek maanaam ku ñu moom daal mooy ab jaam rek lañ ko sañe def waaye gor moom kenn sañu koo liggéey loo loolu mooy firnde ne xamuñu ko woon kon xamuñu woon loolu waaye lañ fàtte woon a xam mooy ne ñaari mbir bu jëkk bi mooy ñàq wi daa wi xaraama lekk mooy ñàq wi nga jël te neexut boroom waaye li la nit ki jox ci coobareem ak ceeyu bakkanam dagan na ceew nga lekk ko moo tax lu mu la may baa mu sarax la ko baa mu jox la ko addiya dalay lew ñaqama waaye lew na la ndax moo la ko jox ci coobareem léegi xidma te mooy liggéey boobu ki koy def da koy def ci coobareem ki mu koy defal moom lay neex mu defal ko ko kooko kooka mënantu ko maanaam néewu ko da nga koy def ci sëñ tabañ moom moo koy def ci coobareem ngir lañ ko cay fàggul ci defaru aku yiw mu am ko kon liggéey boobu da ko def ngir yar yaram ngir tàggat yaram bi ba teqali ko ak tayel tàggat koy ba lim mënta ñàkk man lépp ngir ak dunduk àdduna mën a yéwén ba mën a def àdduna muy war waayam bu jëm alaaxira mu tàggat yaram ba man li mu war a man lépp ci xeeti jëf ay liggéey ay liggéey yu nit war a def tàggat ko ba mu sawar bañ a tayal bañ a bëgg noflaay bañ a bëgg lu yomb waaye tàggat ko ba mu man lépp lu mu war a man tàggat ko itam ba mu nangu lépp lu ko yàlla sant man koo def tàggat kon yaram bi tàggat boobu muy tàggat yaram bi nag ci liggéey da ciy jaarewaale defaraale jikkoom dindi ci moom ak rëy ndax day liggéey mook moroom yi mook mboolem ñun ñëppay àndandoo di liggéey xam ne moom ñëppay am bu daa liggéey lu ñëppay àndandoo di liggéey kenn du xàmmee ki sëriñ bi jur ak ki buur bu jur ak ki baadool bi jur ak ki géer gi jur ak ki ñeeñu bi jur kenn du xàmmee kenn kenn ñëppay àndandoo di liggéey kon ak rëy day day dindi rëy di dindi gis ne yaa gën nit yaa gën keneen loolu lépp da koy dindi ci nit kon day yar jikkoy nit ki da ci yaraale jikkoy nit ki ci liggéey boobu loolu kon lu lu lu yees la lu mu indi ci wàllug yar kon yar yar yaram waaye yar bakkan day yar bakkan ci li ñëpp juboo woon mooy jihaadu nafsi waaye su ko defee kon loolu day xiifal ñi muy yar day ndaa na leen xiifal dëkk ci xiif ak mar ak wéet ak noppi du ak saxoo tudd yàlla maanaam moom noppi sax noppi kese rek moom daa jàpp ne loolu du du taxul ñuy wax waaye day sax day tax nit day saxal nit ki ci muy tudd yàlla fu mu toll waaw bu nekku di jëf rek na nekk di wax lu baax waaye bu mu noppi nii rek kese lu ma tax lu ma tax daal ca lay noppi ak wéet ak ñàkka nelaw loolu boole woon na ko ci ab yaram mooy not bakkan loolu itam kon ci yi mu des la ngir yar bakkan jumtukaayu yooyu ñu waxoon te ñëpp juboo woon ci la jëfandikoo ci not bakkan waaye yar xel ci jàngal ko jàngal nit ki def ci moom xam-xam jàngal ko xam-xam waaye yar ko ci di xalaat fikr foo toll lu sa bët tege sa xel root loola xalaat ci mbir mooma ba dolli koo ca ak ngëm muy xalaat yar xel itam ci wa ci di ko waar waar nit ki kon jàngal nit ki ak waar ko ak yar tàggat ko ci di muy xalaat loolu lépp yar xel la loolu jëfandikoo na ko boo demee ci masal ko jinaan tafakkur muy xalaat daral na ko fa ab bunt jàngal nit ki xalaat di ko wax nam amee solo ak yoon wi mu jaar ba def ko ak ci lan la war a xalaat ak xalaat bi lan la koy jural loolu lépp ci yar xel la bokk jàngal nit ak tàggat ko ci xalaat ak di ko waar di ko yee di waxtaan moom di ko yee di ko laabiire waaye yar ruux ci jaamu yàlla ci ci sas ko yan ko yanub jaamu yàlla yan ko yanub jaamu yàlla bu gis boo xam ne da koy yanu te dootu ko yanniku ba mukk ba ba muy faatu waabud rabbaka xataa yaateekal yaqiin kon mën ngaa wax ne jumtukaay yi sëriñ bi jëfandikoo ci yar juróom benn la bi ci jëkk mooy jàngale yóbbaale na xalaat ak waaraate ak yar nit ki ci jaamu yàlla mooy sas ko sasu jaamu yàlla bu diis yan bu diis jaamu yàlla bu mu dul taxale ko bis bu set mu di ko def mooy ak tarbiyatu bil ibada li ci topp mooy not bakkan mooy ak tarbiyatu bil mujahada li ci topp mooy tarbiyatu bi mulazamatil al qudwa mooy nit ki taqoog nit ku mat ku ko mën a defar muy taqoog moom saa su nekk ak yar yar ko ci xidma ak tarbiyatu bil xidma mooy mu dëkkee liggéey fu mu toll bu nekkul di jaamu yàlla nekkul di zikr mu nekk di liggéey waaw ci xidma waaye yar ko it ci muy sax ci barab boo xam ne dara lu naqar yàlla du fa nekk mooy al iqamatu fi biatin saaliha kon ak taalim mulaazamatul murshid arrabbani attarbiyatu bil ibada mooy al wirdul yawmi attarbiyatu bil bil xidma attarbiyatu bil jihad ak al iqamatu fil biati saaliha juróom-benn yi mooy jumtuwaay yi nga xam ne sëriñ bi jëfandikoo na ko ci yar ba def yaram mu nekk yar bu matale boo xam doo jël jenn wet bàyyi ga ca ga ca def kon loolu bokk na ci li ko ràññalee ak ñeneen ñi nga xam ne dañu jël ak wet ñii dañuy jàngal nit ki rek ñii dañ koy saxal ci jox ko wird rek dégg nga ak yu mel noonu kon matale googu bokk na ci li ko ràññalee ña ko jiitu woon bi ci toppaat mooy bàyyi xel li mën a nekk bàyyi xel li mën a nekk sa war a nekk moom lay tudde alwaaqiya maanaam sëriñ bi dafay bàyyi xel ci ne ki muy yar nit la ku mel naa ngam ne ci barab sàngam di dund ci jamono sàngam kon aw yar yi ni nga koy yaree war nga cee bàyyi xel moom ki mu doon ak fi mu ne ak jamono ji muy dund loolu da koy kon day sàmmoonteeg nit ku nekk da koy day jëfante moom te na na yelli ca moom te loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santoon ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat waamil kulla shaxsin bima yaliqu bi mooy muamalatu kulli shaxsin bima yaliqu bihi kenn ku nekk mu jëflante yow ca la yell ci ci yow ci na nga mel ak fa nga ne ak sa jamono moo tax mboolem ñi mu yar ñépp solu leen ci menn medd jaaral leen ci wenn yoon kenn ku nekk daa am nu mu lay yare nu bokkut ak na muy yare sa moroom boo ñëwee ci alwirdul yawmi mooy sasu jaamu yàlla yi muy sas ni ku nekk par bis bis bu set am na ñoo xam ne ci alquran la leen di tënk seen wird mooy alquran maanaam alquran rek ca la ñu yëngu di ko jàng di ko bind di ko jàngale loolaay seen liggéey defloowu leen leneen joxu leen wérd bayloowu leen gorloowu leen maanaam ba mu leen ba mu noppee ci la ñëpp bokk daal maanaam bañ génnee ci daara tarbiya ji daal ba nga xam ne lañ fay def moom ñëpp a ko bokk mu leen di yewwi ku nekk nag mu war laa jox waruwaay woo xam ne doo ko wàcc ba ba ngay àgg ci sa boroom kenn ku nekk la mu lay jox du bokk ak la mu jox sa moroom am na ñoo xam ne alquran la leen di jox du leen jox leneen am ñoo xam ne wird wañ xamoon wirdu tariqa leen di jox wirdu tariqa bu bàyyi ko ci moom mbaa cheikh abdul xaadir jilaani mbaa cheikh ahmad tijaani mbaa cheikh abul hasan assadali radiallahu taala anhum mu jox leen wird kenn ci ñooñu mu jox la wirdam tënk li ci charte yooyee nga yor ko mu ne sa warwaay bi ngay bi nga xam moom ngay war doo ko wàcc ba ngay wuy ci sa borom baa nga àgg ci moom kon am na ñoo xam ne du woo leen jox ndax loolaa dëppoo ak ñoom am ñoo xam ne du leen jox wér bi du leen tënk ci jàng alxuraan lu dul la ca mënta ñàkk ndax alxuraan tam kenn du ko gàddaay waaye da leen di saxloo ci liggéey ak tudd yàlla alxidmatu wa zikrul kasir du leen jox wird du leen jàngaloo alxuraan waaye zikar zikar ak liggéey bu sax dàkk ci la leen di tënk nga xam bu ñu jógee fa ñuy tarbiyawoo fu ñu toll seen làmmiñ day saxoo tudd yàlla dañ saxoo ba gën a yomb sax te gën a ëpp te te te te làmb lépp muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah fu ñu toll nañuy wax baat boobu rek saxoo ko fu mu fu ñu toll tey dëkkee liggéey liggéeyal jullit ñi waaw loolu am na ñoo xam foofu leen tënk muy seen warwaay bi ñuy war ba ba ñuy àgg ci yàlla mbaa ñu wujj ko am ñoo xam ne ci jàng ay xasidaam la leen di tënk jàng alxuraan boole ko jàng ay xasidaam jàng aslëf ci alxuraan waaye ëppal gën a baril jàng ay xasidaam yi nga xam ne wéetal yàlla ci nekk ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci loolu rek mooy seen waruwaay bi ñuy war di ci doxe ba ba ñuy àgg ci yàlla mbaa ñu mbaa ñu mbaa ñu wujj ko nga gis kon kenn ku nekk daa xool ki nga doon ak li nga mën ak fi nga ne ak jamono ji nga say say say li la tënk ci jamono mu mu yan la yan bu méngoog loola loolu bokk na ci di ko wutalee ña ko jiitu woon nga xam ne ñu ci bari benn waruwaay lañ yor woo xam ne ku ñëw rek ñu dugal la ca nga war boo ko boo mënee nga war googa ak boo ko mënut kooku mooy ñaar ci di ko wutale ñi ko jiitu woon ñett mooy xikma daa am xikma ci ni muy jëfandikoo li gaa yi wax li gaa yi jàng li gaa yi bind ci téere yi bu ko dee jëfandikoo day am xikma da ci da ciy boole xikma mooy li ñuy tuddee li may tuddee al xikmatu fi tatbiqi al mabda al asil al xikmatu fi tatbiq al mabda al asil maanaam li ñëpp jàppoon ne lu mënta ñàkk la bu koy jëfee da cay boole xel maanaam bu ñu ne lekk lu lew lu mënta ñàkk la mabdaun islamiyun suufiyun asil bu ñu ko waxee lekk lu lew xam nga ne bu ñu la saraxee nga lekk lew na la suñ la mayee nga jël lekk lew na la buñ la joxee xadiyee nga jël lekk lew na la boo liggéeyee ba am lekk lew na la waaye moom ci biir lekk lew loolu bàyyiwu la ne la noo mën a taxe ba lekk lew lekkal la déedéet dana la kaay liggéey kaay nga liggéey kon akulul xalaat bu mabda bi bi ko bi mu ko jëfandikoo xidma la indi amal maanaam amal la indi amal mooy liggéey mooy kas bul xalaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama lekkut lu gën li mu ñaqal boppam yonent yàlla daawut ci ñaqu boppam la daa lekk maa akala ibnu aadama atyaba min amali yadihi wa kaana nabiyullahi daawut yaakulu min min amali yadihi kon liggéey boobu nga xam ne lekk lu lew la bëgg ñu jëfe ko liggéey la def loolu ñu ko lu xikma la maanaam daa xool anam nga gën a xereñ ci jëfe li ñuy santaane mu indi yoon woo wax boo ñëwee ci beru beru xam nga boo tëjoo ci sa néeg doo génn mukk fatu rek dëkk ci fatu kenn du la gis beru nga boo demee ci àll ba def fa sa mbaar mbaa nga dem ci sanu garab rek sax fa waaye ci xun biir xunti ma dëkk fa beru nga waaye moom bi mu bëggee jëfandikoo beru googu daa ànd ak mbooloo ñu dem ci àll ba gor ko sanc fa ay barab boo xam ne lañ yittewoo lépp ci seen dund dafay am ci dëkkuwaay ci ay jaamukaay yàlla mooy ay jàkka ci ay jaamukaay mooy ay daara ci ay liggéeyukaay muy ay tool mu fab mu dem fa moom mi yare ak ña muy yar ñu war a beru mu beru faag ñoom nga xam ne beru nañ de ndax nekkuñ ci biir nit ñi waaye nag ah beruwuñ beru goo xam ne bu ñàkk njariñ la ndax fañ nekk ña nga fay def loo xam ne ma nga leen di jariñ ci seen diine leen jariñ seen àdduna di jariñ mbooloo mi bàyyi ginnaaw di jariñ mbooloo mi bàyyi ginnaaw kon loolu xikma la bi ci mujj nag ci ko wutaleeg ñi ko jiitu woon ci ci ni mu jëfe li njàngale mi ñëpp bokk mooy rafet ni muy nose moom mbiram da koy teg ci ab nos maanaam nit ki dañ koy teg ci yoon nosal ko yoon woowa nit ki bu ñëwee dañuy xool lan mooy li war ci moom ci jamono jii mu nekk mooy xukkumul waqti xukkumul waqti fa saadiqul muridi man yanqal bi xukkumul waqtihi ki nga xam ne daa toll ci jàng kenn du ko liggéeyloo ji dañ koy yóbbu mu jàng ji alquran bu dee ca la toll xam-xam bu dee ca la toll ki nga xam ne jàng na alquran jàng xam-xam waaye am nay waajur yu magee yu am kenn yoo xam ne amuñu ko leen yor bu dikkee jox ko bopp da ko naan demal nga yoral ma say waajur du ko téyeegun di ko tarbiye de da koy yabal mu yore ay waajuram ba noppee gis waajur door a dellusiwaat bu ñëwee nag mu door a ànd ak moom ci yoon wi nga xam ne moom la koy tegal bu ko defee nag day nos dëkkuwaay ba da koy nos ber ci dëkkuwaay bi ber ci jàngukaay bi ber ci liggéeyukaay bi ber ci jaamukaayu yàlla bi fenn fu nekk mu wutal ko barab barab bu nekk mu sàkk ay waxtu yoo xam waxtu sàngam nañ fa def nangam waxtu sàngam ñu def nangam nga xam lépp da koy da koy nose bam ne nocc kon xosum tanzim boobu bokk na ci li ko ràññalee ak ña ko jiitu woon bokk na ko li ko ràññalee li ko jiitu woon mooy ña ko jiitu woon ñu ci bari dañoo yittewoo nit ki rek bàyyi xeet wi maanaam islaaxul fard bi bàyyi mujtama bi donte mujtama bi sax moo fard mënee su leen teqale dañuy yar nit ki rek ba mu juboo boroomam ba mu juboo boroom ak ruuxam sell mu jege boroomam ñi ci des nag ñoom càkk ñi xam def boroomam jóge woon moom moom génn na ci ñoom ñu génn ci moom moom nag day bàyyi day nit ki du ko teqaleeg mbooloo mi du ko teqaleeg mbooloo mi su ko waree ber ngir ngir yar ko itam ci biir yar boobee ma ngi cay bàyyi yoole xel ñam bàyyi ginnaaw ci ci fi mu nekk nii ndax ma ngi koy liggéeyloo loo xam day jariñ mbooloo ma ca ma ñëwut waaye ma ngay defar ay jikkoom ba bu delloo xam nu muy àndeek ñam bàyyi jafe-jafe ya nekk ca mbooloo ma ci xeebaateeg séddale nit ñi ay xaaj ñii naan yéen lii ngeen yéen lii ngeen yéen lii ngeen mooy ñu séddale woon rek xeetu Sénégal ñenn ñi nag kuréel bu ne ñu am lu ñu leen tudde ba mu yar nit ñi ma ngay bàyyi xel ci buñ fa jógee loola dañ ci xeet wi mooy tabaqiya dañ rëy ak ñenn ñi ñenn ñu nekk jàpp ñoo gën seen morom ñii di xeebaate ñii di nangu ñu xeeb leen loolu lépp mu di ko bàyyi waale xel ci kii bi bàyyi waale xel luy yokk koom-koomu xeet wi ak luy defar seenu seeni jëfalante loolu lépp da koy bàyyi waale xel ci biir ab yaram di bàyyi waale xel dunduk àdduna ki muy yar ni muy bàyyi waale xel dunduk àllaaxiram kon loolu lépp bokk na ci li nga xam ne ràññale na ko ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon néewaan daal nga gis koo xam ne lii ma wax lépp daje na ci moom ni mu dajee ci moom mii kon loolu mooy ràññale yarin sëñ bi akub akub yaram bu ci wàllu ruux bu ko defee nag ngir tëj ñu wax ne sëriñ bi daal dafa xarañ ndax lii mu doon def lépp ci ñaari jumtukaay ci ñaari yoon yu mag la ko jaaree moo yoonu tarbiya yoonu jàngale ak yar jàngale ak yar la jël jëfandikoo ko ba lijjanti ci li mu bëggoon a lijjanti lépp waaw ci la defare nit ki ba mu baax ci la defare xeet bi ba mu baax loolu daf ñu jàngal ne kon jàngale ak yar lu am solo la loo xam ne nii ku bëgg a defar nit ba mu baax baa nga bëgg a defar aw xeet ba mu baax jaarale na nga ko jaar ci jàngale ak yar ndax daa mel ni lépp li ñuy defaree nit ci jàngale lay dellu ak ci yar diine ji boo ko jëloon pas-pas day yar nit jaamu yàlla yi ñuy def jaamu yàlla gu ne am na yar bu muy def ci nit ki ak lu muy defar ci moom atte yi ñuy atte yoon yi ñuy tuddee yoon di ko tëral muy ay at ay yoon yi ñuy atte nit ñi yoon yooyu yëpp yar nit lañ ci jublu bu ko fee kon lépp loo xam ne lu ñu tër la rek ngir dundum nit man ñoo xam ne mi ci diine wala ci àdduna ci yar lay delluwaat kon jàngale ak yar daal lu am solo la lu mat a bàyyiwaat xel kon maa ngi tënk fii kàddu bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu